Euh, salaamaaleykum cher internet univers info tv di leen ziyaar bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu amee ko def euh, tey nag ñu ngi fi euh, certes une dame boo xam ne nee naa la tiktok beeg réseau yi gars yi xàmme nañ ko bu baax a baax a baax nee naa la kooku mooy taalibi Serigne Modou Kara bi kan lañ koy wax Nogay Kara Nogay Kara nag gis ngeen ko ci réseau yi ba instant bi nag dafa marqué dafa marqué bu baax a a baax a baax moom la univers info tv daal di dalal fa seeni waxtaan ak moom ci rumeur yi nga xam ne jot na fi xew maanaam ci digganteem ak sunu Serigne boobu nga xam ne moo di Serigne

macha allah moom laa la indi tey. Mhm. Nogay euh, tout récemment rek ñu daal di gis euh, ay collage bu doy waar ah nit ñi di ci commentaire ba ku nekk di ci wax muy sa sëriñ boobu nga xam ne sëñ Modou Kara ñu ni dafa takk soxna te soxna bi mu takk de du kenn ku dul Nogay Kara bi toog bi nga gisee loolu nan la la def. bu ma gisee loolu damaa sax dama sax am lu ma métti. am naa lu ma métti am naa na loo xam ne neexuma ndax ku mel ni si Ahmadou Kara Mbacké nga koy dëkk Nogay mu xeebu mi. ma nga xamante ne man Cheikh Modou Ka su ma ko gisee damay jooy ba damay aalu lenn kenn danga may jooyloo kenn danga may daaneloo muy Cheikh Modou Kara Mbacké mhm. ndax ndax yow dama ko bëgg macha nu ma mel Cheikh Modou Kara moo ma ko melloo ak mm. Serigne Saliou Mbacké ma bëgg ko loolu ba su ma ko gisee sax jàq sa ñu dem ziyaara ji sax damay damay kontaan damay am mbégte kontaan ba du duma ba su ma ko damay damay ne këlëb daanu. Mhm. ndax bëgg ko di jooy bay jooy jooy xol. Mhm. ndax dama koo bëgg. Mhm. waaye boo bëggee sa sëriñ nga yaakaar ko tey ëllëg sa sëriñ ki nga yaakaar tey mu deful li nga mel noonu mën a sa yeeg moom jàqaala ak moom bokk ma benn néeg. loolu est loolu est-ce que wax logique la. déedéet. kon bokk nañu xool lu ñuy wax bu baax a baax. dañuy faral di wax naan sénégalais du du du sos dafay yokk benn affaire. est-ce que Nogaye Kara dafa am benn relation bu ñëwee ak seddaay bu ñëwee day daal di dem mhm. ndax bàkkaar yee bari mhm. moo tax tàngaay ak seddaay bu ñëwee day daal dem lu taxaw mhm. ndax bàkkaar yi ñoo bëri lekkuñu naa waaye am nañ lu ñu kaa am nañ lu ñu nettali buñu buñ la déggatu gisuñu la xamuñ su loolu ne dañ la sosal waaye man nee naa la man ak man man man man pàkk am laa dëkk maa gaynde ñoo ñoo ñoo ñoo nduroo gis nga ni ma toll <laughs> xel bu dal kasa la mm-hmm. ak fula ak fayda ak ak am fit mm-hmm. waaye defe naa ku bindul ak ku dugaloo bu jàqaal ma duma ko wax mun na ma saa na ma wax lu nekk mm-hmm. waaye sama sëriñ boo kon duma ko foowee xalaatu ma ko sax man naa la woo wala ma dëgg la la woo dama ma jàllale moo tax ma woo la te ñooñu ñooñu te ñooñu su ma leen gisoon barke Seexul Xadiim demee nii ndax man sama sëriñ kenn du ko wax dara man saaga man day ma lu la neex waaye Seex Moodu Kara kenn du ko laa ndax kooku dama ko bëgg sama xol lu ma mel moom la sama mu sëñ Modou Kara rek moo moo moo moo mun a jool ak sama papa. waaye mhm. man Cheikh Modou Kara. Mhm. mun nañu wax Nogaye Kara ndax man maa maa ngi dégg lu ne. Mhm. boo nekkee si yoon bu baax di nga dégg dëmm di nga dégg jaga di nga dégg dof. waaye man ci yoon bu bon tënnu ma si si yoon bu baax rek nga may gis. dëgg la may liggéey. guddee wàcc. teel a liggéey guddee wàcc. lu góor mun rek mun naa ko man Nogaye Kara. amu man nag da waaye maa ngi sant yaa sant Serigne Bam lu ma bëgg a faj dama koy faj maa ngi yore samay doom yor sama yor sama yaay mhm. te sama benn moom du ma gis ba xeeb ma fii nii ma yoroon ni fii nii fii fii ni fii ni fii ni fii ni ma xam ne moom laa la indi mhm. fii laa yoroo fii laa màgg fii laa defee la ba ñàkk sama ba ñàkk ki ma yar du ànd ak sax jigéen ay góor lay ànd ndax am fit mhm. bu ànd ak jigéen la politique moo tax ma ànd ak jigéen ndax laay wàdd la dama bëgg Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Mm-hmm. mun nga ma wax lu ne waaye Cheikh Modou Kara Mbacké kenn du ko tudd mm-hmm. te loolu na metti na ma ba sa ba sa ndax xam nga parce que na nañu mën a takkale sans photo mm-hmm. wax ne no koy Kara Cheikh Modou Kara moo koy takk loolu loolu waxuma sax waaye doom buñ ko déggee ndax man damaa xeewu taaliba Cheikh Modou Kara laa man damaa jaay sama pirig ndax Cheikh Modou Kara jaay sama la dëréere ndax Cheikh Modou ndax joxe sas koo xam ne da bëgg sa sëriñ nañ nga mun a nekk ak moom benn néeg bay sa yëg moom nañ ma wax wax nañ nañ ma bind lu nekk waaye bu ñu laa sama sëriñ mhm. nañ ma mun a wax lu nekk mhm. ndax man yàgg naa dégg ay waxi sew yàgg nañ maa yàgg yàgg naa dégg lu bon su lu ñaaw lu ne mhm. waaye ki ñu laal moo tax ma xëy suba teewoo la ne dama la soxla dëgg la ku ñu laal moom moo ma wax loo dama dama bëgg Cheikh Ahmadou Kara nu ma mel Cheikh Ahmadou Kara man sama papa man sama papa man bañ na ko sama papa bu demee ba nekkul njëriñu garaandaka Cheikh Modou Kara ka teg sama papa bu taxee lu taxee mu feebar Cheikh Modou Kara moo na nga parce que la da koo liggéey ba ba def mu weddi mu toog. Mhm. ndax tànk yi mënatul dara. kon boog man man sama waa kër ñëpp Cheikh Modou Kara Mbacke lañ. Mhm. man sama doom bañ ne ko man dama ne man doom mu am naa ko tuddee Cheikh du Kara ndax bëgg ko. Mhm. aw ma yaakaaruma kenn ku Cheikh Modou Kara Mbacke rek laa yaakaar muy fii ak àllaaxira fu mu munti jëm Cheikh Modou Kara bañ na ko man du ma du dem sax sëriñ. jërëjëf sëriñ Touba laay wax. bu mm-hmm. may génn jërëjëf sëriñ Touba laay takk. Mm-hmm. ndax kooku laa yaakaar kooku laa doyloo. mu mm-hmm. Cheikh Ibrahima Fall. muy sëriñ Bamba Cheikh Amadou Karam Cheikh Ibrahima Fall ndaamal daaru kooku laa yaakaar. macha allah yaakaaruma kenn. loolu dañ ma laal bu ñu laal sëñ Modou Kara. ndax buñ ma dax bu ndax yow ku ma gën a bëgg boo ko laalee sama sama xol ngay laal. te dañoo laaj sama xol sama xolu góom lañu laal muy Cheikh Modou Kara Mbacke. bëgguma nga jël lenn mun nga wax na koy Kara waaye bul jël dara teg ko Cheikh Modou Kara mu ko bëgg sama xol. Mm-hmm. kooku rek laa yaakaar aw ma kenn ku dul kooku. Mm-hmm. wax ma ne ma nogay karaat dëmm ko dof nga ma encaissé ma muñ. Mm-hmm. ndax jigéen laa ndax jigéen fu nekk mun na fa dëkk ay sëñ Modou Kara ba ko kenn laa. bëgg sama xol. nogay bi nga bi nga bi nga yeewoo nga gis ko nga gis ñu ñu boole leen ñu taxaan naa si nogay karaat tax waxuñu sa takk ma ne ko ban takk. ñu lay woo téléphone fu lay takk ma ne ko ñu ma Cheikh Modou Kara ma ne koo xam ne doo ko gisee da ngay di daanu kon kooku nan nga mën a sëy ak moom. Mhm. taalibe buñ ko dégg sax dañ day am lu leen di metti dëgg la taalibe buñ ko dégg wala ay doo buñ ko dañuy am lu leen metti mhm. nañ ma laata bàyyi Cheikh Modou Kara mhm. bi loolu amee kenn ci naa leen woon na la ku ci mel ni doomam wala koo xam ne jëwriñu daayira la pour wax ni que euh, lan moo tax loolu xew sama jëwriñu daayira wax na ma ne ma sëñ bi dalay takk ma ne ko man de loolu ma xaw a jaaxal sax ma ne rek ma ko man sama jëwriñu daara woo dañ lay taq borom bi da lay taq ma ne ko ma def <laughs> loo sax ma def ay reetaan mhm. koo xam ne boo ko gisee da ngay jooy da ngay àll mën a sëy mbokk ma benn néeg mhm. wax bu logique da nga koy ak waxu nit bu ñu déggatu nogay karaa rek xamuñu nogay kaa si lu mu nekk ñu créé ko dara mhm. sama baña ko sama numéro mu ngi si TikTok bu ñëpp a ko xam boole ma gisu déggooleem dama am si lu ma nekk ma nekk ma si TikTok bi di wax ay wax yu dof rek damay am da da damay boo xam ne damay damay noppal wax dafa metti uh-huh. wax dafa metti te uh-huh. làmmiñ ak bët day téye nit uh-huh. làmmiñ ak bët day buñ ma gis gisuñu ma xamuñu su lu ma nekk ñu may créer ay wax nañ ma créer ay wax taf sama fa def loo ne waaye buñ ci boolee sëñ Modou Kara sa diggante ak sëñ Modou Kara nekk na lu yàgg ndax yaa ngi koy wax sa biir wax sa papa la woon tey yow la ah. est-ce que nekkul tamit complicité boobu nga am ak moom ba ba sa waajur liggéeyal ko ba toog ba tax na ñu la koy wax ñu wax yee ñu am fit tey nii ni sëñ Modou Kara day takk man damaa bëgg sëñ moodu Kara ba sama ba sama TikTok mhm. man du ma dugal sama photo sama mhm. xarit dañ ma ne ma na koy Kara doo dugal sa bopp sax mhm. ba sama jour anniversaire sëñ Modou Kara laa dugal ndax bëgg ko sama profil TikTok Cheikh Modou Kara la sama profil WhatsApp Cheikh Modou sama écran Cheikh Modou Kara la kon kon xam ne bëgg naa ko man lu ma waaye naxee naxoo ma sëñ Modou Kara perte nga te lu ma waaye naxee naxewoo ma Cheikh Modou Kara doo am sama xaalis kooku rek laa rek laa yaakaar doyloo man damay toogal ay mbàkke man kër gi ma kër gi ma la indi mhm. ay mbàkke maay doomu Serigne Fall dañ fiy nekk mhm. ma toogal ñu ma ne la man taaliba Cheikh Modou Kara laa ragal fii rek day xañ wërsëg moom laa bëgg ba fii ak àllaaxira mhm. sama xol bëgg bañ na ko moo rombee ba sa du mu la si teg ba mun la wuyu rek laa bëgg kooku rek laa yaakaar doyloo ko ana ana fan nga jaar ak moom tey jii nii ba booy wax ak moom sax gis naa ne booy wax ni exemple da ngay am aal ci moom. lan lan la lan la la wan lan la la wan lu xam ne kii maan la ba tax na doo ko tëkkaleeg lenn moom sëñ Modou Kara. sëñ Modou Kara. Mhm. dama ko bëgg sama mhm. xol. laa ko bëgg. lan la la wan su ma lay wax si moom damay jooy. Mhm. lu tax ma bëgg gën a bëgg Cheikh Modou Kara dama am doom. metti torop. naka te kër gi ma dem. foofu la papay sëñ Modou Kara doon nekk mhm. may dem mhm. mel ni man kër gi ma nekk Cheikh Modou dafa ne ma duggal fii metti woon na trop ma yore sama doom ama fu ma jëm mhm. ama fu ma nekk mu metti trop gisuma kenn mel ni yàlla dafa ne ma duggal kër gii nii petit mbaaw kooku moo nekkoon bëkk neeku papay sëñ Modou Kara mel ni dama fa dugg moo dugg ma ne ko su nekk papa mu ne maa ngi si jàmm ma ne ko dama bëgg a añ mu ne ma yow loo tudd ma ne ko Nogay Kara mu ne ma sa papa lu mu tudd ma expliqué ko ko léet mu ne ma xam nga fi nga nekk ma ne ko xaw ma ko de mu ne ma yaa ngi mu ne ma fii nii nga toog fii la papay sëñ Modou Kara doon toog man muy muy muy kan muy ma ne ko ah. mu ne ma suuf su mu tëggee tànk moom laa lay may nga sex sexal sa doom te nekk naa weer si nekk naa weer puti mbaaw di dugg kër googu di lekk te sama papa gisuma boobu mu ngi daara mu ngi boobu yow mu ngi daara sañ Modou Kara muy Medina sëñ Ousmane Ndiaye sama papa di ma wër gisuma ndax man sama papa benn doom la man rek la bëgg ci àdduna bugguma def lu bon ndax man kër gi ma yoroo sama bàjjan yaruma su lu bon su lu baax la ma yaree mm-hmm. dafa ne ma mar naa bu la tax naan petit bu rëbbi na ubbee nga rus mun naa def le ba des lu bon ma dem di fóotu ji sax moo ma gën a may def lu bon ndax ëllëg damay jël sama doom di ka nàmpa bugguma def lu bon ma dugg si kër yi di ñaan sax moo ma gën a may def lu bon ma dugg foofu noonu mel ni sëñ Modou Kara moo taxaw sama kanam dama mara naan bu la taxa naan pour Cheikh Modou Kara moom moom moo ma wax li taxan taxaw ak Cheikh Amadou Kara nag may wax ko yàlla ma gis sama doom. dëgg la yoo ma xiyaam. Mhm. taxaw fi ma toog fa la ma fa la papay sëñ Modou Kara doon toog loolu la ma paa bi wax. dama sëñ Modou Ka taxaw jëm yor yor jëmm ngelaw mel ni ngelaw a romb ne ma mar naa bu la tax naan pour bu rëbën a ëbbee nga tus fii nii nga nekk bu fi jógee liggéey fi ba yàlla jëlee la fi moo toog di fa liggéey maire bi si paa bi si boppam doomam moo ma jël may liggéey hôpital la doon liggéey boobu sama doom amul ay garab amul dara lu ma garab yu ma jox sama doom naan sa amu ko doomu paa bi jël ma may liggéey ma koy liggéeyal Mm-hmm. sama papa di wër di wër wër ba gis ko benn mbokk taal ba ne ko sa doom ngay wër mu ne ko mu ngi mu ngi ko mu ngi bër kenn kër Diorin Saliou mu ngi benn kër Ousmane. Mm-hmm. sama papa ñëw ba foofu noonu. Mm-hmm. mu expliqué ko ko lépp ah ba mu ne ko sama doom la. boobu maa ngi nekk xale. mu metti woon torop gisuma kenn sama papa rek laa gis. moo tax ma sama papa. ndax gis mu metti ma gis ko mu tàng ma gis ko mu neex ma gis ko. kon lu ma am sama papa laa koy yóbbu gisuma kenn gisuma yaay gisuma bàjjan ma pare rek laa gis. Mm-hmm. sa waajur bu jigéen dafa génn. sama waajur bu jigéen mu ngi fi waaye man dama bëgg sama papa moo ma yar. Mm-hmm. so mm-hmm. sama papa moo ma yar moom moom moom ma xamal lu bari. su ma demee bay def lu bon su ma xalaatee sama papa lu ma wax damay bës sama xol toog. famille bu rëy laa bokk yax bu rëy laa bokk. famille bu riis ñu am xaalis. xool ma nu ñu am sama bopp. fii ma la indi ni sama bàjja dafa am xaalis. Mhm. moo ma yar. Mhm. waaye dafa ne ma amala sa bopp bu la kenn yóbbaale. bu la waay may na nga jël. Mhm. waaye bul topp naan may ma gémm mu yàggee day xeeñ day amala sa bopp nga nekk jàmbaar. may ama bu di jaay parfum 2000 di gàddu mbuusi 100 francs di wër di jaay. Grand Dakar laa dëkk juga Grand Dakar dañu màssa bees di jaay li laayef di liggéey. su ma paree paas sama cag-cag jafe sama 3000 aller retour su may dem 3000 est-ce que dinaa am bénéfice bugguma toog damay liggéey waaye naa am ñaar yoo xam ne su ma yoon naa jox sama papa ne ko ndékkil mhm. ndax man may taaw bu góor may taaw bu jigéen yaakaaruma kenn sama papa laa wéer mu feebar amee ay tànk yi metti maa ko war a jàppale mhm. ma ñaan kenn waaye lu ma waay may dama koy jël te bu jamono gi nekk na jamono ga ku la waay may bu subaa ma xas la na la maa la may maa la defaral mhm. loolu laay bañ nag te man bañkat laa bëgguma ko ma yab bañkat a tax ma toll ni ma toll mhm. bugguma ku ma yab Cheikh Modou Kara rek laa yaakaar mhm. nu ma mel sëñ Modou Kara la lu ma wan ma dimbali daf ma jàppale si lu bari ma bëgg Cheikh Modou nu ma ko bëgguloo sax xaw ma ko ak Cheikhul Khadim moom rek laa yaakaar sama àdduna tey ak ëllëg fii ak fële nu ma ko bëgg sama oh, biir xol macha allah ñu daal di génn ci facette boobu rek daal di dugg ci li nga xam ne moo di euh, euh, kiiwu maam Ndiaye savon bi lu tax gisuñu Nogaye Kara Kazu Rajab kër gii kër gii ma la indi mm. fi la magu maam Ndiaye savon di sëy kër ma indi sama raq kon boo nekkatu sama xarit sama mboq la ndax mu mm. ngi sëyal ndax magam mu ngi sëyal sama raq papa mm-hmm. man Ndiaye savon nit ñi dañ koy waaye man man lay wër ndax dama saf xorom man maa dàq mburu ak ton <laughs> xarit la mhm. moom ak mam su ma xamee maman Virgile maam Ndiaye Savon moo tax ak Zal Mbaye mhm. su ma xamee maman Virgile maam Ndiaye Savon moo tax mhm. su ma nit ñi xamee maam Ndiaye Savon moo tax su ma demee ma palaasam toog du fa liggéey magu maam Ndiaye Savon moo fa yóbbu mooy ut liggéey mu ne ma kaay ma yóbbu la si maam Ndiaye Savon ba xam dina la jël ma nekk jànkam di ko liggéeyal ma arrêté Mm-hmm. muy liggéey def def ay foire ma toog fa di ko liggéey di ko jàppale. Mm-hmm. mais tamit ci ci Kazu Rajab bi dafa jënd micro bu. wax taxaw yuuxu la. ne na koy lekk ma gi dama bëgg lekk. Mm-hmm. ma bëgg lekk bu neex bu baax na loolu lañ ma yaree. dëgg la dégg naa vidéo yëpp tegal nañ ma ko. mais est-ce que woo na la téléphone invité en person woowu ma. moo wooyee si tuuru famille du ñëw. soo ma woowee si si si ay ay ay ngénte du ma ñëw boo ma woowee Serigne Bamba damay ñëw ndax Serigne Bamba rek laa yaakaar asuma kasaro ji Serigne Fallou Mbacke. Mm-hmm. Serigne Fall la ko Serigne Fall dañ ko bëgg njaagay bëgg ñëpp bëgg ko. Mm-hmm. waaye la ñëw ma sama papa moo feebar. Mm-hmm. amul lu dul sa biir wax yaa ngi naan maam Ndiaye moo tax nga xam Zal Mbaye moo tax nga xam maman vulgaire te instant bi boo xoolee Zal ak Ticket Laobé dër bi la. problème boobu lan la ci lan la ci Nogaye Kara taxawee. parce que ñoom ñooy say xale lañ. waaw lawbe mm-hmm. lan moo si yoon bawal bawal. lawbe ak géwal lan moo si yoon bawal bawal. mu ñuy ba ñuy xam ne dama leen a xam. Mm-hmm. mais seen xarit xamante. mais kàddu yi yi ñu jógoon dafa ñaaw. waaye ñaaw si wax sama yoon ne ñoo mun xuloo ñoo juboo waat soo la. Mm-hmm. lawbe ak géwal la si yoon bawal bawal dama bawal bawal. kon tey daa yëkkati woo sa téléphone waxoo ci kenn lenn. mooy woon nekku sa digganteeg euh, ki nga xam moo di maman vulgaire. ma la. Mhm. taaliba Sëriñ Saliou Mbacke Sëriñ Ngom. borom mhm. meer forox ma xarit la. Mhm. ndax boo xoolee tout temps rek défense ki nga xam ne moo di na koy karaa lay jël. sama xarit la. sama xarit la sama yaay la sama xarit la. Mbacke Sëriñ sama yaay sama xarit la. defalu ma dara mayu ma dara waaye maa ko bëgg sama bopp. defalu ma mayu ma maa ko bëggal sama bopp sama xarit la. Mhm. ma koo bëgg te yàlla rek a tax. Mhm. yàllaay boole ay xol dama ko bëgg. ma xarit la moom it mu daal def teraanga ji bari yóbbul maam ci xaalis ñu ngi wax cent mille la. bi mu ko doon def est-ce que amoon nga. woo na ko téléphone. Mhm. wax na ko en ñëpp dégg woo na ko téléphone na ko mu ne ko damay dem Touba te noonu la day sëy. bu leneen taxee sëy ak leneen kenn du ko boole. asuma duur kasu rajo. Mm-hmm. waaye fa mu dem ak ak fa mu dem ak fuñ koy benn la ndax Kazu Rajab la mm-hmm. waaye goroom lay dem musu fa dem musu fa dem fa mm-hmm. c'est normal daal ko yónnee ki nga xam moo di Mame Ndiaye Savon ah, Samb c'est normal parce que moo ko ko ji ñoom ñaar dañ ko sékk xaritam nu mu mel Mame Ndiaye Savon moo tax il faut mu jël dooleem def si moom ndax bu ko nit ñi xamee Mame Ndiaye Savon moo tax te da koo yëgal gor gor rek la mu doon tout le temps taaliba Sëriñ Bamba li nga jàppoo dañ koy bàyyi amuñu si sa boo xamante ne ku ñu woo si fenn ñu waruñoo nekk di tiitaru di sa ndaxu di def ay affaire ndax siiw bu ñu siiw déedéet ndax siiw du dara ñu fi siiwoon anañu Youssou Ndour mi nga xam ne moom moom moom mooy suñu bàyyi lan lañ ko fi wax est-ce que mos na tontu. déedéet amatuma temps pour tontu temps wu liggéey laa am. Mhm. dimbali sama pa kër ga ñoo may kese fooy koo taxam tabax ko dugal sama ndey dugal sama dugal samay doom. kan moo la may kër Nogaye. man ma ma mama mama virgule la ñu woowoon. Mhm. pour ñu laajfal ko mu yóbbaale ma. Mhm. ñu dem wësagu yàlla fu ne lay jóge macha allah ñu may ma kër ma jël kër bi jox ko sama baay li ma mel sama papa la mhm. man bugguma dara man nee naa samay doom bu ñu tekkee sa nañu may sama papa bañ ma defaral man mhm. man maa wax lu am solo sa digganteeg sa papa nga ko bëgg sama xol nee naa la ñaar laa bëgg sama lu muy Cheikh Modou Kara sama papa Cheikh moodu Kara sama papa laa bëgg ñaan ñi butigu butigu Nogay Kara moom la sénégalais di xaar ndax gaa yaa ngi ubbi bitik dem Dubaay beeg yépp lu jot yomb est-ce que nogay su ma bëggoon tukki rek suba suba ma defar sama passeport tukki ñaata nit ma woon naam defar sa passeport nga yóbbu la nga tukki jotagul laa léegi su ma demee nag dee fa nag mais lan moo waral xaar bi parce que ñu ngi lay woo di la wax déggoo ma la jotagul nit mun ngaa mbébadu da te yàlla wowu la fa su ma yàlla wooyee damay wut damay dem mhm. su ma sama kafe doo su ma ko fa waree naan dama ko fay naan jotagul mhm. defaraguñ ma ko moo tax naanaguma ko. naanagoo ko fa. mais instant bi doo toog sax ba mu nekk sa xel. Mm, man tukki wala nga gis gars yi ni ñuy ay ñoom fantam bu wàcc conteneur yi sama xel. xam nga lu gën a ne sama xel dimbali sama papa. mais ci tukki gi mën nga cee tedd. parce que foofu pala bagage yi nekk ma ne yàlla woowaguma si fitta xoo rek ma dem te dama koy duggat woowaguma <laughs> sama café doos bu koy yëngalee ma war koo naan foofu laa koy naanee. Mhm. am na solo. nga nekk porte de voix tey fi ni xoolal ni réew mi di doxee maanaam ci côté élection bi rayante beeg yooyu ana ban message nga ciy bàyyi xale na ñi lay topp ndax TikTok bi gars yi dañ lay topp te xañ na boo leen conseillé ñu bàyyi la xel ci politique bi ñu war a toog ak rayante beeg yooyu Macky nga wax de Macky Macky nga xam ne du signe du ñëpp yaa ngi la xay Macky Sall yoruma loolu muusi san francs yi di wër di jaay ku ma tëj laay ba du ma xëyee du ma ndékki amuma place mais ak élection yi doo lancé waale appel. ñu jox la place ubbil la place bu am jom la <laughs> mais waxal ak xale yi ko. ñi rayante génn di wàcc di xeex. waa xeexi moom. Mhm. jaru ko nañu bàyyi xeexi. Mhm. te nekk si lu ñu nekk nekk si liggéey bi. Mhm. te xam ne Macky bu doyalee rek day dem. ah mais doyal da ko war a teg ci yoon tamit nag naka teg ci yoon nag xam naa nag déggoo ma daal fu ne bu ma sañoon sax dama laaj Macky borom veer yi ndaw yi. <laughs> Euh. doo dooma ko laaj. borom veeri ndayu bu ma ko laaj. <laughs> mais nag sénégalais nga nag ci dëkk bi nga bokk dangaa yor sa carte d'identité politique sax man bañ ko bu wote jotee du ma dem wote fi ma toog laay toog ndax lan mais nag am nga droit sam papa day xulloog man ma ne ko du ma vote ndax lan man kenn rek laa bëggoon sama àdduna mhm. bu naa la ko dee du ma ko wax fii mm. tele la may ñu ko tuuti rek <laughs> kooku rek ngay toog kooku rek laay xam naa sonko ngay toog eh, leer na sonko bëgg naa ko waaw bëgg naa mais kon tamit di c'est normal nga jël sa carte may ko def ak jàmm mu génn ak jàmm ak salaam ndeysaan na borom jàmm la sëriñ bamba la yaakaar mhm. ku yaakaar sëriñ bamba doo sonn déedéet te yal mhm. la te allah na koy kara ñu ngi lay remercier bu baax a baax ana lan ngay tàggatoo rek ñu daal di fi ba tëj di da damay boo ma payee damay dem liggéey dem jaayi ji macha allah damay mm-hmm. dem liggéey damay dem jaay ji ni sama portefeuille sama sama liw xàmmaami mm-hmm. sama mbuus yooyu noonu xewu ma a benn yoon te duma ko mës sa xeeb bi ki dem bagg am na ñu fi jaaroon léegi ay place par lañ yore dara xëyu sotti mm-hmm. lu war a am rek day am te looy dem bay am na na nekk loo xamante ni lu lay lu lay jig la dëgg la ndax loo xamante da nga koy yor pe te du la jig nga deesi say mbokk perte yow nga perte te lépp loo yootu nag na fekk lu la jig. dëgg la mu neex yàlla. Mhm. waaye bul forcer loo xam ne amagoo ko. dëgg la lu ma forcer dara. Mhm. te loolu am ma yéene ko ko. Mhm. ñaanal ko si. ndax sëriñ ndax sëriñ Bamba rek laa yaakaar doyloo ko. xaw ma ko du Cheikh Modou Kara Mbacké. lu ma waay di ndax nexee ma sëñ Modou Kara Mbacké. macha allah ndax sëriñ Saliou Mbacké. yàlla na yàlla may gudd fan ak wér gi yaram. alhamdulilah jàmm am fi su dooree nooree. amiin amiin ñu dem man nag damay màggale daaru nag. waaw gars yi jël paas bi. daal di paas yi. génn leen paas yi damay màggali daal te dama war a joxe sas mhm. waaw kay sas laa war a joxe wala jën yére wala jàqalal sama sëriñ jox ko àddiya mhm. kenn amul nag yàllaa am nag mhm. waaye ñi am nañuy dimbali ñoo xam ne amuñu dëgg la te seen Modou Kara rek laa yaakaar damay joxe sax te damay jox sama sëriñ macha allah màggal daal maa ko moom sama màggal la kon nañ takk nañ takk ba dëgër daal di ànd ak Nogaye Kara daal di màggali daaru comme ni mu ko waxee donc kontaan nañ leer na Pape Kopp euh, mu ngi nii toog moom moo ko wax a toute personne donc daw leen gaaw ngeen abonné Univers Info TV